mu casquette premier ministre nek li nga xamante manam moy parti chef de parti moom moo taxaw nek juge nek avocat nek pôle judiciaire financier nek procureur ba nopi dal di leen raxas bañu sa doj nee na dafa vide naka nga jangate des dossiers yo xamante c'est pendant devant la justice parce que kii di Cheikh Dieng auditionné nañ ko deglu nañ ko. waaw par dig ñoom ñoo ko auditionné. tey kii di averti. porté nañu plainte foofu ca OFNAC mm-hmm. donc amaguñu ci lumière moom daal blanchir na leen alors que dañ ko waroon dénk deux milliards kese ñi ne sàcc la Mame Mbaye vingt neuf milliards ñi sàcc la tey ñi nga xamante ni jiiñ nañ leen cinq milliards ñoom Abbas Fall ak trente six milliards ñi leen laaj xaalis bi nee na dara nekkul ci dossier yi mais kon li nga doon wax mooy mooy police mooy gendarmerie mooy avocat mais loolu la fa def moom moom moom mooy mooy mooy loolu bu dee moom bu bu nekk si moom bu ñu lu bu ñu jiiñ ne dafa sàcc xaalisu ay milliards u Sénégal sacc suñu xaalis wala sacc suñuy bien wala sacc suñuy contrat wala sacc yooyu nga ne yow biir Pastef nga nekk Ousmane Sonko mooy taxaw yow doo dem tribunal doo dem police kenn du la enquête que moom mooy taxaw setal la mhm. bu dee keneen nag mu ne la demal tribunal boobu deux poids deux mesures la bu doon Sénégal yow yaay taxaw yow premier ministre ah yow yaay taxaw di ut kuy set ak ki kon nañu tëj université yi fac droit nañ ko tëj nañu tëj fac droit mu ne day théâtre dem si ay stade arena boo xam ne 15000 places lay def 15000 places falul député pour am député plus de 60 000 places la. tey Ablaye Wade la daan jël stade bi la daan jël mu fees del ah euh, Macky président Macky Sall la même chose ñeneen ñi ay ay stade la ñu jël 60 000 places yow nga jël 15 000 places si coalition nag bu leen ñu dofloo. Yen, gis ngeen gis ngeen ñi ngeen bëgg nax. coalition la boy bi la setal boy bi la setal moy directeur azer légui photo bi lan la wax. Cette photo me rappelle quand on était gamin, après avoir commis une bêtise, on avait toujours ce grand frère qui nous donnait le courage. Genre boul am titre, Boul Amloï ragal ñu ngi sa Jean Michel Sène moom moo signé contrat à Zerbi. alors que vous fait une une surfacturation Fadilou Keita moo yor caisse de dépôt et de consignation te appel au fond Fadilou Keita le demande de 5 millions. qui allahu akbar est-ce que cela justifie. Loubal, lubal lu bën lan lay ki wax ta ñoo. ak tey c'est sa Fadilou Keita qui prend le petit gosse de Jean-Michel Serre. waaw comme bi nga xamante mo signé contrat bi mom nee scandale amul dara amul il prend les Sénégalais pour qui. Wa légui Fadilou Keita mom kay la fi doon millionnaire. ba mën a ñëw léegi bay mën a ba mën ñëw di jël ay 5 millions di joxe.

Hmm. mais jël jekki rek def ni France joxé nañ cent euros wala vingt mille etc def non hmm. te yow xamoon tour gi nom prénom date wala lieu de date et lieu de naissance ak ban fonction lay def ak fan la jëlé xaalis fu mu koy dugal. Hmm. légui loolu transparence bobu amul si yow sa fonds yi ni ñu koy défé bëgg ñu ko bu calculer 15 000 francs pas 1000 francs c'est combien. 15 millions 15 millions. légui buñu jëlé 100 100 députés ñu yokal non 100 ministres. 100 millions, vous 1 million, c'est combien 100 millions. Si vous avez 115 millions, vous avez plus. Vous avez auto. Ousmane Sonko, quoi est-ce un avez auto, auto 250 000. Vous avez auto 200 000. Vous 30 places ou 35 places. Mhm. Place, vous avez 1000 francs. 30 mhm. places, de 30 000. Vous avez 35 places, de 35 000. Vous avez auto 250 000 francs. Mais vous avez 000 francs. Vous avez fait auto 000 francs. pour mu ñëw kii walla moo ëpp fuuf yow la ngay yalwa waa léegi campagne boo xamante ne yow nee nga keesi état doo si laaj dara doo si laal dara maanaam di nga si fay oto deux cent cinquante mille di nga si joxe ticket di nga si joxe euh, logistique di nga si joxe lu mu lekk lu mu naan loo neexalaate ak loo jox gars yi lu ñu ñu ak dépense mu yóbbu nekk jox ma mille francs yow léegi yow koo yepp koo yab ba ne yow laal yow mais loolu kon yow jaratul campagne. mille francs bi ngay laaj escroquerie la est-ce que présenté na facture bu mu fayee li nga xamante ne mooy location arena parce que gisuñu ko bien public la. man gisuma ko. mais manifestation Pastef la fa yóbboon du manifestation publique. mais moment bi nga xamante ne ñu ngi ko soxla. ñu ma ne man gisaguma facture bi. man da li alxuraan li ñu jàngal mooy in jaaxum faasixun bi nabayin fata bayanu. bu la information dikkalee vérifier. Hmm. Youssou Ndour de day fay facture am génne. feesal e- arena hmm. moom defar na arena am ba defar ay caméra yi écran géant si biti ba mu defee écran géant si biti si biti kenn nekku mooy premier échec xanaa xamoon loolu mu leen man toog na ay waa Pastef mhm. ñu ne ma dañu defoon ne affaire bi day fees ba si biti mais xam nañ ne Sénégalais yi tourné lañ leen dóor te ñoom sax ils ont peur que bu ñu demee élection dañ leen dóor parce que defe nañ ne lii nii lii nii la nekkoon sax euh, fële seen terrain AKPS bi ñu demoon fii seen terrain bi nekkoon si neen sax xam naa moo ëpp lii nee que bu dem bay daw ay terrain di dugg si ay salle mhm. li xamante ne Moussa si diine yi rek mën nañ ko feesal mhm. waa pur feesal nañ lii euh, euh, Waly sekk feesal na fii Youssou Ndour diw naka ba fees diw si kaw si suuf ak si biti gars yi ndaxaw si biti naan bëgg a dugg mënu ñoo dugg suñuy ticket kon loolu Youssou Ndour am na fi loolu ñoo xamante ne dañu ñëw di jënd ay billets di fay vingt mille trente mille quarante mille cinquante mille yow 1000 francs ngay ñëw yow yaay sonal kii bi mu ñëw sonn ñu jël seen i scénario xam nga bii passé bi ñuy def seen projet bi benn paa lañ jël mooy Lamine Ndiaye comédien def kii wooyu après accidenté na ñu naan waa fu mu accidenté nañ génn image yi génn ñu après def noonu après wane nañ benn image jomaay dem seeti gu mu tëdd ci benn lal hôpital waaw yow tamit yow ñun ñun waaw Sénégal ak portable yi fi nekk yëpp hmm. ñoom seen i scénario du ñu génn kii bi nee nañ agent agressé du ñu génn affaire yi ñu pare ñu ne après beneen maire xam nga ñoom lan lañ jël hmm. pa maire xale hmm. wala jigéen ñoom loolu la ñuy jël bu ñuy sàng sa sango Macky Sall wala ku nekk si kii bi dañuy jël benn jigéen mu ñëw xam nga dañ naan doo tontu ne jigéen comme Macky Sall lay voyage yi nañ jël benn ku jigéen mu ñëw benn paa wala benn maire mu jéem ko sànni ñaari baat pour ñu jéem a dans genre essence te ñoom ñoo koy def de ñoo koy organiser ñoom dañuy organiser yu mel noonu parce que ñoom nee nañ Pastef am na lépp am na ay saagakat am na ay xastekat am na ay lépp te ñoom nee na dictature lañ fi war a indi ñoom ñoo ko wax ñoom man waxuma ko seen wax la seen paa yi ñoo ko wax seen màggu Pastef yu xiis mbàcc yooyu xamante ne amuñu benn respect Sénégal ak dignité ñoom ñoo na léegi nañuy jël fay xale yi ñu dem si rajo yi télévision yi ñuy saaga bu jaree saaga ñuy saaga ñoom ñoo ko wax